الحب اللي عمره ما يشمت asalaamaaleykum mbokki déglukat yi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo dellu siwaat ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi te di leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di dellu di sant yàlla sunu boroom ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist
آه asalaamaaleykum sunu mbokki auditeurs yi sunu mbokk yi ñuy faral di déglu fii ci sunu émission sunu programme bi ñu dippee kàddu gu sell gi man seen mbokk seen doomu ndey pasteur Ahmed Fall maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di nuyu askanu Sénégal yépp di nuyu képp ku fi yewoo di sant yàlla sunu boroom ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist moom mi nga xam ne moo ñu may ñu tal ko ba toog fii tey jii di ubbi téere bu sell bi ñu yàlla sunu boroom jox muy biibal bi téere bi nga xam ne fa la ñu wone boppam téere bi nga xam ne fa la ñu jàngale boppam téere bi nga xam ne fa la ñu wone ci yan anam lañ koy jaamoo téere bi nga xam ne képp ku koy jàng wala boog ngay déglu fuñ koy jàngee yokkute kese nga ciy jëlee ay yool kese nga ciy jëlee mbokki auditeurs yi tey jii nag dañuy def benn waxtaan boo xam ne dañ koy lal ci benn cër bu nekk ci doomu aadama muy cër boo xam ne cër bu am solo la muy cër goo xam ne cër gu tuuti la wante liggéeyam am na solo torop ba yàlla sunu boroom wax ci yàlla sunu boroom wax ci ndaxte cër googu cër gu am solo la cër googu cër la goo xam ne doomu aadama bu nekk war nga ci bàyyi xel bu baax yàlla sunu boroom nag wax ci yàlla sunu boroom nag bind ci yàlla sunu boroom nag am lu mu ñu ci jàngal moo tax damay ubbi téere bu sell bi jàng li nga xam ne moom la ñu yàlla sunu boroom wax ci cër boobu nga xam ne mi ngi ci doomu aadama bokk ci yaramam te muy làmmiñ làmmiñ yàlla sunu boroom dafa wax ci làmmiñ am lu mu ñu jàngal ci làmmiñ am lu mu ñu won ci làmmiñ am lu mu ñu wax ci làmmiñ ñu jàng ci kóllëre gu bees gi jàng ci xaaj bi nga xam ne moom lañu jagleel sak jàng ci aaya ñett jàng ci saar ñaar ba ci fukk ak ñaar lii lañu yàlla sunu boroom wax ndaxte ñun ñépp sikk nañu ci fànn yu bari ki sikkul ci kàddoom ku mat nga te mën nga moom sa yaram wépp noonu ku laab fas ngir mu déggal la noot nga jëmmam jépp te gaal yi it yu rëy lañu te ngelaw lu am doole di leen jinax waaye dawalkat bi weñ gu tuuti la leen di jëmee fu ko neex ci noonu làmmiñ cër su tuuti la waaye day bàkkoo jëf yu rëy seet leen ni ferñeent tuutee te mën a lakk àll bu yaatu noonu it làmmiñ safara la di bon bonu àddina ci biir cër yi tey musibaal jëmm jépp jumla bu seytaane taal muy lakk àddina nit mën naa noot xeeti rab yépp rabi àll yi picc yi yiy raam ak yi ci géej gi noot na lépp waaye làmmiñ kenn mënu ko noot musiba la mu dul dal mukk fees dell ak dangar ju rëy làmmiñ lañuy sante borom bi di sunu baay ba noppi mooloo ko nit ñi yàlla sàkk ci meloom gémmiñ gi sant mooy moolu yéen samay mbokk loolu warula am ndax ndox mu lewet ak mu wex dinañu balloo ci genn mbënd samay mbokk ndax mës ngeen a gis garabu fig gu meññ oliw wala garabu reseŋ gu meññ fig mukk mbëndu xorom mënta nàcc mukk ndox mu neex lii la yàlla sunu boroom wax ci saar yu am solo yi ñi jàng mu nekk ci kóllëre gu bees gi nekk ci xaaj bi ñu jagleel sak ci aaya ñett saar ñaar bu fukk ak ñaar yàlla sunu boroom wax ci làmmiñ mu ñuy artu balaa mu ñuy artu sax mu jàngal ñu lan mooy làmmiñ mu ne ñu làmmiñ cër gu tuuti la wante day bàkkoo jëf ju rëy nit ki nga xam ne buy xoolee sax nit bu amul làmmiñ wala boog bu làmmiñ gi dul wax dañ naan kooku matul am na lu manqué am na lu amul ci cëram yi ndaxte làmmiñ nekk na cër goo xam ne cër gu am solo la ci biir ci yaramu nit yàlla sunu boroom nag wax ci ndaxte làmmiñ ni mu ko waxee dafa nekk lu tuuti wante loo xam ne ah day bàkkoo jëf yu rëy mu jël làmmiñ joxe ay misaal ci làmmiñ nee na noonu ku laab fas ngir mu déggal la noot nga jëmmam jépp yàlla sunu boroom jox ñu misaal googu ne ñu xool leen fas ni mu mel fas lu am kàttan la fas lu mën a daw la wante fas amul doomu aadama boo xam ne am nga doole di am doole ba ëpp doole fas fas bu loofee sax moo ëpp doole doomu aadama bi nga xam ne moo gën a rëy ci àdduna boo jëlee fas gi gën a loof boo ko booleeg doomu aadama bu am kàttan fas ba ba léegi moo koy ëpp kàttan waxatuma ak fas bi nga xam ne dafa lekk ba suur dafa naan ba màndi te mi ngi noppalu yàlla sunu boroom nañu xool leen fas ni mu mel ni mu amee doole boo ko laabe maanaam loolu ñu naan ngalaab nga def ko ci moom fu la neex nga koy jëmee bu la neexee nga jëmale ko ndeyjoor bu la neexee nga jëmale ko càmmoñ bu la neexee nag muy daw rekk jëm ci kanam te yow mi nga xam ne yaa koy yóbbu fu la neex yàlla sunu boroom nee na kon yow noon nga jëmm fas googu ak doole gu mu am ak kàttan gu mu mënta am ak nu mu gaawee nee na boo xasee ba laab ko rek yow moomu noot nga ko noot nga yaramam gépp te loolu nga xam ne moom ngay def ci moom laab goog nga xam ne moom ngay def ci moom day nekk loo xam ne lu tuuti la day nekk loo xam ne weñ gu tuuti nga koy defaree ak buum gu tuuti nga koy defaree def ko ci gémmiñ gi def ko ci uh, uh, kanam gi bu boobaa nga yóbbu ko fu la neex yàlla sunu boroom nag ne kooku nga xam ne laab na ab fas kooku laab na yaramu fas gépp mu joxaat ñu beneen misaal nee na gaal yi it yu rëy lañu te ngelaw lu am doole di leen janax waaye dawalkat bi weñ gu tuuti la leen di jëmee fu ko neex man mii di wax ak yéen pasteur Ahmed yàlla def na ne liggéey naa ci uh, gaal ci bato gu rëy diir bu yàgg dama daan yéemu ci benn mbir bu ma duggee ci bërëb bi nga xam ne fa la ñuy dawalee gaal gi li ñu wax lu am la benn mbir mu tuuti rek ngay yore ci sa loxo di jëmale gaal gi foo ko bëgg mu dem te mbir moomu dafay tuuti ba nga xam ne Uh, boo koy xool ci gaal gi daanaka moom mooy li nga xam ne moo gën a tuuti ci gaal wante mooy li nga xam ne boo ko yoree ci sa loxo fu la neex ngay jëmee gaal gi moteur yi bu tàkkee bu la neexee nga dem càmmooñ bu la jeexee nga dem ndeyjoor bu ngelaw gi ñëwee tamit da nga xam nooy def ba génn ci ndaxte loolu mbir mu tuuti boobu nga am moo lay may kàttan googu ba nga xam ne yow yaay yilif gaal gi ni waa ji yilifee fasam nee na noonu itam làmmiñ cër su tuuti la waaye day bàkkoo jëf ru rëy nee na seet leen ni ferñeent tuutee te mën a lakk àll bu yaatu noonu itam làmmiñ safara la di bon bonu àddina ci biir cër yi tey musibaal jëmm jépp jum la ju seytaane taal muy lakk àddina yàlla sunu boroom nañu làmmiñ mi ngi mel ne ferñeent ci biir àll boo demee ci àll ferñeent gu tuuti mën na ko lakk yépp dangay dem ci àll nga gis mu tàkk ba lu bari lu bari lu bari yàqu fa wante bu ñu jeexee mbir mi ba ci biir dañuy gis ne ab daay bu ndaw lañu taaloon fu sori ngelaw gi ñëw benn ferñeent bu ndaw rek dem lakk àll bi yépp yàlla sunu boroom ne ñu làmmiñ noon la mel dafa mel ne ab ferñeent bu tuuti nee na boo moytuwul rek mën na lakk àll gu bari nee na itam làmmiñ dafa nekk loo xam ne seytaane dafa gis li mu mën a yàq ba nga xam ne dafa ñëw léegi laxasu ci ngir indi musiba ci biir àdduna nee na seytaane dafa ñëw nangu sunu làmmiñ seytaane dafay jéem a moom sunu làmmiñ mu am ñu bari ñoo xam ne seytaane nangu na seen làmmiñ ba nga xam ne lépp loo xam ne génn na ci seen gémmiñ jaar ci seen làmmiñ day nekk loo xam ne seytaane moo koy wax ndaxte dafa gis ne cër googu nekk ci yaramu doomu aadama cër la goo xam ne bu am solo te mën na ko jëfandikoo ngir mën a taal yàq ngir def lu bon lu bari ci biir àddina yàlla sunu boroom di ñu yee ci làmmiñ mu wax ne itam nit mën na noot xeeti rab yépp rabi àll yi picc yi yiy raam ak yi ci géej gi noot na lépp waaye làmmiñ kenn mënu ko noot musiba la muy dul dal mukk fees dell ak dangar ju rëy yàlla sunu boroom nañu làmmiñ dafa fees ak dangar làmmiñ dafa fees ak dangar bu la bu la bu la dangar gi laalee mën na la rey dafa am dangar loo xam ne nag dafa am dangar yow doomu aadama bi danga war a moytu ba dangar googu du gaañ kenn boo deful ndànk dangar googu mën na génn ni jaan amee dangar ba nga xam ne bu la màtte boo gaawul tuuti sa bakkan dana ci des wala boog mën na ci des yàlla sunu boroom nañu làmmiñ dafa am dangar gu rëy a rëy rëy gu nekk ci moom ba tax na doomu aadama bi war na def ndànk ak làmmiñam loo xam ne dafa am dangar loolu kat dañ ci war a def ndànk dañ ci war a moytu yàlla sunu boroom wéy di wax naan làmmiñ lañuy sante borom bi di sunu baay ba noppi móoloo ko nit bi yàlla sàkk ci melokaanam gémmiñ gi sant mooy móolu yàlla sunu borom di ñu jàngal ne làmmiñ googu lañ koy sante wante làmmiñ googu itam yenn saa yi ñu génnee ci ay kàddu yoo xam ne mi ngi jëm ci sunu mbokk sunu dëkkandoo doomu aadama ne ñun muy doon kàddu yoo xam ne dañ ciy móolu doomu aadama nee na nag loolu waru la am mu jox ñu benn misaal nee na ndax mbënd dana génne ndox mu neex ak ndox mu weex nee na loolu waru la nekk loolu mënut a nekk warut a nekk mbënd mi kay dafa war a génne ndox mu neex kese ci loolu lañu yàlla sunu boroom di xiir loolu di tekki lan yàlla sunu boroom mi ngi ñuy wax naan ñu seen làmmiñ bu mu wax lu dul lu baax seen làmmiñ bu mu wax lu dul loo xam ne lu tegginu la sunu làmmiñ na wax loo xam ne ca dëgg-dëgg lu baax la lu fees ak teggin la loo xam ne ku ko dégg xam ne kat lii lu yokk la lii lu baax la boo gisee nag yàlla sunu boroom wax ci làmmiñ ñu bind ci làmmiñ daf ñuy artu ngir lan ñu mën a noot sunu làmmiñ ngir lan ñu mën a noon moom sunu làmmiñ ba nga xam ne seytaane du ñëw jëriñoo sunu làmmiñ jëfandikoo sunu làmmiñ ngir taal àddina wala boog dañu waxloo loo xam ne ci dëgg-dëgg du li gën du li yàlla di xaar ci ñun mbokki auditeurs yi ñu dogli tuuti cant balaa ñuy ñëw ci ñaareelu xaaju waxtaan wi
adonai nari aletzo mishenu נקדם אף בתודה בזירות הריאנו כי גדול אדוני הוא מלך גדול על כל אלוהים הריני מזמן את פי להודות ולהלל
mbokki auditeurs yi yàlla sunu boroom mi ngi ñuy artu ci làmmiñ yàlla sunu boroom mi ngi ñuy soññ mi ngi ñuy artu mi ngi ñuy wax ne nañu def ndànk ak sunu làmmiñ moo tax bu ñu jàngee ba tey ci kóllëre gu bees gi li mu ñu wax ci xaaj bi ñu jagleel sak ci aaya benn saar fukk ak juróom-ñeent mi ngi naan ku nekk war ngaa farlu ci déglu te yéex a wax yàlla sunu boroom moo wax loolu nee na yéen samay jaam mbindeef yi nga xam ne maa ngi leen maa leen a sàkk maa ngi leen di wax lii dee leen farlu ci déglu te yéex a wax dee leen déglu te farlu ci te ngeen yéex a wax yàlla sunu boroom mi ngi ñuy wax foofu ne bu ñuy gaaw di wax nañuy xalaat bu baax balaa ñuy wax nañuy bàyyi xel ci li ñuy wax nañuy déglu nañuy déglu nañuy déglu balaa ñuy wax ndaxte xam na ne làmmiñ bu xasee ba wax niñ koy waxee fii ci Sénégal bal la boo xam ne tàkk na ba pare noonu lañ koy waxee fii ci Sénégal loo xam ne nag boo waxee ba pare defaraat ko day jafe wala boog mën na yàq loo xam ne sax yow xalaatuloo ko woon kon war nga ci def ndànk yàlla nañu yàlla sunu boroom dimbale ci jëmmu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist ba ñu doon ci ñooñu nga xam ne danañ farlu ci déglu te yéex a wax yàlla sunu boroom di wéy di wax ci téereem bu sell bi naan ñu bu ñu xoolee jàngee ci euh, euh, kàddu yu xelu yi ci aaya fukk ci saar fukk ak juróom ñeent day wax lii nee na wax ju bari mooy ñàkku ca ku moom sa làmmiñ xelu nga loolu la wax yàlla nee na wax ju bari mooy ñàkku ca ku moom sa làmmiñ xelu nga mi ngi ñuy wax naan jëmm ji nga xam ne day wax di wax di wax di wax rek fu mu toll mi ngi wax du dégloo lu nekk mu wax nee na wax ju bari jooju nee na bàkkaar ñàkku ca nooy gën di bari wax nooy gën di wax rek du ñàkk nga moy du ñàkk nga moy ndax wax ju bari jooju nga xam ne yaa ngi koy wax nee na ku moom sa làmmiñ ku xelu nga boo moomee sa làmmiñ ku xelu nga yàlla sunu boroom moo wax loolu nee na nit ki nga xam ne nit ku dal la nit ki nga xam ne dana dégloo balaa muy wax nit ki nga xam ne dana segg seggaat li mu war a wax balaa muy génn ci làmmiñam nee na nit kooku nit ku xelu la nit kooku nit ku xelu la moo tax itam daawuda doon wax ci sabuur ci aaya fukk ak ñett saar ñett nee na moom sa làmmiñ sàmm sa bakkan nee na ki nga xam ne moom na làmmiñam ki nga xam ne noot na làmmiñam kooku mi ngi sàmm bakkanam loolu la yàlla sunu boroom wax loolu la euh, daawuda taalif mu nekk ci téere bu sell bi nee na moomal sa làmmiñ maanaam nootal sa làmmiñ bu boobaa yow mi yaa moom sa bakkan wante bu dee sa làmmiñ nootuloo ko bu dee moomuloo sa làmmiñ ba nga xam ne lu nekk nga wax nee na ci dëgg-dëgg nit kooku kat sàmmatul bakkanam te bàkkaar soriwu ko ndax waxam gu bari googu yenn saa yi da ngay dégg nit wax dara boo ko déggee da ngay dar sa loxo ci sa gémmiñ ne lu mel nii naka la mën a génnee ci gémmiñu doomu aadama moo tax yàlla sunu borom naan ñu gémmiñ gi nga xam ne day naan day sant borom bi da koy sant ba pare dellu di móolu doomu aadama nee na loolu mënuta nekk mënuloo génnee yenn kàddu yi nga xam ne kàddu yu ñaaw la kàddu yu bon la kàddu yoo xam ne tegginuwul nga génnee ko sa làmmiñ teg ci tuuti nga taxaw ne kat da ngay jaamu yàlla yàlla sunu borom nee na loolu mënta nekk nee na mbënd mënul génnee ndox mu neex ak ndox mu wex nee na garab gi nga xam ne day meññ figg garab googu mënul meññ reseng déedéet loolu mënul nekk nee na gémmiñ gi nga xam ne mi ngi wax lu bon mënul dellu itam naan day jaamu yàlla yàlla sunu borom di wax ne ub sa gémmiñ moom sa làmmiñ mucc ci ñàqare loolu wax na ko ci bataaxal bi ñu tuddee kàddu gu xelu yi ci aaya ñaar fukk ak benn ci saar ñaar fukk ak ñett nee na ub sa gémmiñ moom sa làmmiñ mucc ci njàqare nit ki nga xam ne ub na gémmiñam nit ki nga xam ne noot na làmmiñam kooku dana mucc ci njàqare wante nit ki nga xam ne dangay wax rek nit ki nga xam ne nootuloo sa làmmiñ nit ki nga xam ne moomuloo sa làmmiñ yilifuloo sa làmmiñ nit ki nga xam ne ngalaabuloo sa bopp maanaam defuloo laab ci sa gémmiñ ba nga xam ne balaa ngay wax da nga segg seggaat nee na kooku du du du du mën a mucc ci njàqare njàqare dana wàcc ci kawam di wàcc ci kawam saa su nekk ndaxte kooku moomul làmmiñam nootul làmmiñam e yàlla sunu borom di wéy di wax ci kóllëre gu bees gi di wax ci xaaj bi ñu jagleel sak di wax ci aaya benn ci saar ñaar fukk ak juróom benn nee na ku yaakaar ne am nga diine waaye nootuloo làmmiñ sa làmmiñ diine jooju du diine dara yàlla sunu boroom moo wax loolu ku yaakaar ne am nga diine waaye nootuloo sa làmmiñ diine jooju du diine dara nee na ki nga xam ne mi ngi woote diine te li ma wax nii mi ngi ci téere bu sell bi ci biibal bi ñu jàng ko ci xaaj bi ñu jagleel sak ci aaya benn ci saar ñaar fukk ak juróom benn nee na ki yaakaar ne am na diine waaye nootul làmmiñam diineem jooju du diine dara waa ji nga xam ne nee na am na diine waa ji nga xam ne mi ngi bàkkoo ne xam na yàlla wante lu ñor mu wax lu ñorul mu wax lu nekk mu dugal ci làmmiñam yàlla sunu boroom nee na kooku diineem du diine dara yàlla sunu boroom moo wax loolu nee na yow mi nga xam ne yaakaar nga ne am nga diine yow mi nga xam ne yaakaar nga ne am nga diine te lu nekk nga wax lu nekk nga dugal ci sa làmmiñ foo nekk yaa ngi wax yaa ngi wax yaa ngi wax nee na yow moomu nootuloo sa làmmiñ nee na yow moomu moomuloo sa làmmiñ sa làmmiñ la jiite kon boog sa diine jooju du diine dara ki nga xam ne day mbubboo yàlla te fu mu toll mi ngi wax lu nekk mu wax lu nekk mu génnee ci làmmiñam lu ñaaw mu wax mi ngi xaxar mi ngi def nii mi ngi wax lale mi ngi wax lii mi ngi wax lale yàlla sunu borom nee na man dama la jàpp ne yow moomu amuloo diine donte nag yaa ngi wax ne ku am diine nga donte nag yaa ngi bàkkoo ne xam nga yàlla yàlla sunu borom nee na boole naa la ci ñooñu nga xam ne amuñu diine te nitu yàlla yépp buñ leen di xool jàng seen dund nit ñi la xam ne nit ñu daloon lañu nit ñoo xam ne seeni wax seeni kàddu mësul a bari nit ñoo xam ne kenn mësul leen dégg ñu wax benn baat boo xam ne baat bu teggini la musuñu leen dégg nitu yàlla yooyu nag te maa ngi wax ak yéen mbokku sénégalais ngeen bàyyi xel ci li may wax ndax am na wala amul nitu yàlla yi ñu xam yépp duñu génnee mukk lu ñaaw ci seen làmmiñ te seen wax néew na torop saa yu ñu waxee rek nekk na loo xam ne segg nañ ko seggaat ko nekk na loo xam ne yàlla sunu borom ànd na ci mu soog a génn seen làmmiñ lépp lu ñu wax ba tey jii dañ ciy jëriñu donte génn nañu àdduna nekkatuñ fi ba léegi li ñu waxoon mi ngi des nit ñi di ci jëriñu tubaab yi dañuy faral di wax naan dañuy lépp naan balaa nit ki di wax war na yëngal làmmiñam juróom-ñaari yoon balaa ngay wax yëngalal sa làmmiñ juróom-ñaari yoon mooy xalaatal bu baax ci li ngay wax seggal bu baax li ngay wax saytul bu baax li ngay wax balaa ngay wax bu boobaa li ngay wax dana doon loo xam ne bu xasee ba génn sa làmmiñ doo ci ñaaw te doo ci balu kenn ndaxte day nekk wax joo xam ne wax ju am solo la Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist daf ñu jàngal ci injil ci xaaj bi ñu jagleel Matthieu ci aaya juróom nee na dee leen barkel dee leen barkel te bu leen móolu mukk nee na saa yoo leen i wax dee leen wax wax ju yiw nee na boo leen i wax ak seen mbokk seen dëkkandoo nee na dee leen génne ci seen gémmiñ ay kàddu yoo xam ne ay kàddu yu koy barkel la ay kàddu yoo xam ne ay kàddu yu koy yokk la wante bu leen móolu mukk yàlla sunu boroom nag artuñu artuñu wax ci cër gi nga xam ne cër gu tuuti la nekk ci ñun te muy cër goo xam ne cër gu am solo la ci doomu aadama nee na làmmiñ mën na yàq lu bari làmmiñ itam mën na yóbbu nit foo xam ne bëgg fa woon egg nee na làmmiñ mën na doon loo xam ne seytaane dana ko jëfandikoo ngir yàq ngir taal ngir ñëw jaxase doomu aadama yi yàlla sunu borom di ñu artu yàlla sunu borom di ñu wax nañu def leen ndàkk ak seen làmmiñ xool leen ci fas niñ ko laabee ba nga xam ne fuñ ko jëmloo mu jëm fa kon yéen itam laab leen seen bopp seen làmmiñ ba nga xam ne li ngeen yi wax dana doon loo xam ne ca dëgg-dëgg lu baax la lu ñuy segg la lu ñuy saytu la ba bu génnee day doon yokkute ci doomu aadama yi koy déglu mbokki auditeurs yi maa ngi ñaan yàlla sunu boroom ci darajey Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist yàlla nañu may kàttan goog nga xam ne danañ noot sunu làmmiñ danañ moom sunu làmmiñ ba nga xam ne danañ wax wax ju sell dana ni faral di wax wax ju baax wax joo xam ne day yokk képp ku ko déglu mu doon yokkute ci yow yàlla nañu yàlla sunu boroom dimbale ci darajey Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist ba sunu gémmiñ du génnee lu dul lu baax danañ doon mbënd ngoog nga xam ne wala teen ngoog nga xam ne ndox mu baax ndox mu neex ndox mu set lay génnee yal nañu yàlla sunu boroom dimbale ci darajey Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist ba ñu doon ci ñooñu nga xam ne danañ farlu ci déglu te yéex a wax yal nañuy farlu ci déglu te yéex a wax yal nañu yàlla sunu boroom dimbale ba nga xam ne danañ bokk ci ñooñu nga xam ne ñu am diine lañu te am diine boobu naka lañ koy wone mooy moom sunu làmmiñ noot sunu làmmiñ di wax wax joo xam ne wax ju baax lañu mbokk auditeurs yi lii moo doon sunu waxtaanu tey yal na leen yàlla sunu borom barkeel ci darajey Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo nekkoon ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi ma lay ni fàttali sunu numéro de téléphone di 77 074 35 35 wasalaam.
mbokki déglukat yi fii la ñuy yemale sunu émission maa ngi leen di sant ci déglu bi te di leen fàttale sunu téléphone di 77 074 35 35. yàlla na yàlla sunu boroom wéy di leen barkeel tey wàcce ay yiwam ci seen kaw ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist mën ngeen jokkoo ak ñun ci 77 074 35 35